assalamualaikum sunu mbokk internet yi ma ngi len di siar baax di len nuy di am contenté ak mbekt lol ci gu yeen ci chaîne bi nga xamé ni mom moy mik ci émission bi nga xamé ni moom mooy ëttu Tawhiduna tay nak ëtt bi li nga xamé ni mom mo fi yegg si tay day jigen bo xamé ni lako dal ak lamuy muy don na lako met lol ci kaw suuf liko ko tek mooy doomam bu jigéen bi nga xamee ni tey faatu faatu la ma nga ca bitim réew di fa daan dooleem waaye nag daan doole googee muy daan doole xale bu jigéen bokk yàgg lool bitim réew la waaye tam yàggaayam bitim réew doon na lool lu naxari lool wuy juróom bu jigéen trop loolu nag bu nu ko waxee dina bari lool ñu mu jaaxal trop lan moo tax nag nekkam foofa ca bitim réew naqari lool way juróom bu jigéen ndax lu toll ci fukki at ak juróom yoo xamee ni xale bu jigéen boobu moom moo yor way juróom bu jigéen ak ñi nga xam ni ñoom ay njabootam lañu ak ñaari doomam yi fi nekk waaye nag waaw lan moo tax yaa jooju suur doomam bu jigéen boobu abandonné ko depuis juróom benn at yoo xamee ni saa su ko doom ji wooye du ko faale bàyyi tam saa bu ko yónneewee alal du ko jël dem na ba yaayam na bu kenn jël turam mukk di ko takkantale ak jooju la doomam li ko ko yóbbee nag doo na loo xamee ni dem na nu gëstu ko ba moom mu wax ko waaye tamit waxin boo xamee ni am na sutura am teggin waaye tamit xëy na mënat na ko wax mbaay tamit du neex ñu bari waaye nañu xam ni dëgg moom benn dëgg rekk la ndax xulul xaq wala kànn mu ran yalla da wax ni nañuy wax deug don te itam don nuy ray nañuy sax itam di wax deug ndax wax na ni emission yi sa bu génnee ni di ko deglu rek nité nga ca wet ba am lool lu ko naxari ta do am fenn fu mu ko jeyto mbaay tamit nité ngi laqatu rukk di am lool xam-xam bo xamé ni amul fenn fu mu ko leeraloo ndaw si nak ci bopam wax na ni mom ki mu jur ni mom moko jur ci sëy la ko jure euh, doonte itam dafa tàggali ko ak baayam waaye tamit ci sëy la amee doom jigéen ji am na ko ci sëyin boo xamee ni la njaaloowu ko fenn ko dafa liggéey ak borom këram ba am ci benn doom bu jigéen boobu sëy nag yàlla moom moo koy takk waaye tamit moom moo dogal fase ba doonte itam neexoo ko waaye nee na doom bu jigéenam boobu de dem na bitim réew yor ko bu njëkkoon xamul lan la doom jigéen boobu di liggéey waaye nag ndaw si ci boppam wax na ne doomu jigéen boobu kat am na ci ay firnde yu ko leer moom ni doom jooju ne ma nga ca bitim réew di fa jaay boppam di fa am xaalis di fa dëkk dëkkin bu rafet am fa ay ndaamar am fii taraang su ñëwee ci réew mi ñépp koy xoolee bu nit ku baax. ndekk moom bitim réew gi mu nekk dafay jaayi boppam maanaam dafay def xeetu cagatu ndaw si nekk nee na ma daaw de mu ne ma ki ma lay wax nii maa ko jur suma biir bii la jóge waaye ba ma xamee la muy liggéey foofu ma am ci firnde yu ma leer nañ ca laa araamal donte sax benn ndox la ba may jox ndax su ñëwee fii li may won nekk bu nekkee bitim réew foofu caga lay doon fa jaay boppam yor fa appartement wam yor fa teraangaam bu ñëwee fii jaay ganaan ndaam takki ay or lu lu mënut ci dugg ndaka dafay jaay boppam fu ne mel fukki at nag ak lu tekk musuma ko xam waaye juróom benn at yi ma ko xam ba léegi de musuma njox dox ma naan suur naa léppam yàlla bu ma ko jurati ma ne ko déet noonu si ma ne ma ax ah, kay daaw ndax émission bi nga def déglu naa ko ay yoonu yoon xalaat naa bu ne nan laa la koy waxee lu ne mel waaye keroog de bi xale bu jigéen boo waxee waxi julli ga moo tax ma ne naa la woo wax la ko ma ne ko bu soobee yàlla de danañ ko wax waxin bu am tegginte am war li tax nag mu wax ko moom ndax doom jooju mu jur lay waxal moom waxul doomi jàmbur tumalul kenn waaye doom la wax ne moom ci boppam xam na ni sama doom bi caga la dafay jaayi boppam bitim réew su ñëwee fii di ma jox taraang ba ma ko xamee nag dundatuma jooju la dund mukk ak moom wax ji nag naam lan la war a mën a jur ci wax ko loolu mooy sens wax ji ndax dafa am jigéen yu nekk bitim réew di fa jaay seen bopp jël koom di ko ànd ci Sénégal di ci dundal seen njaboot seeni yaay seeni baay ndax am na am na naam waaye tamit du ñëpp ndax foofu am na ay yaay faal yu fa ne ay faatu yu fa nekk yoo xam ne ngay daan seen doole ci ni mu leen lewee képp di ko yónnee seen njaboot ñu ciy dund waaye nag am na jigéen ñoo xam ne ña nga fa foofa ndax xibaar bi muy egsee gisu nu ñun en personne tàmbalee ko fii ci Afrique ci Gambie ci Mauritanie ca Maroc même ba ci bitim réew ba ci Émirats arabes mbooleem fu nu am consulat rek bu fa consultant bu fa nekk jokk na leen moom laaj ko lu lu mel ñëpp benn wax la na wax ma daawul dañu ne ma naam ni bari na jigéenu sénégalais yoo xam ne bu ñu jógee Sénégal dem ñëw bitim réew bii quatre-vingt-dix pour cent yëpp dañu jaay seen bopp da ngay rus sax boo nekkee bitim réew ndax am na ku ma ne. sama mbokk it nekk di nasaraani dana may woo ma ñëw ne ma diw mii de seen mbokk la waaye damay tëdd ak moom damay jaxasoo ak moom am na benn muudu muudu bu ma woo keroog dafa dafa jooy keroog ne ma daaw de mu ne ko naam mun ma damay rus sax bu ma gisee tubaab di ma wax lu ne mel nan ma kii sénégalais la wala kii jigéen la africain la sëy naa ak moom ma ne ko noonu ñu ne mu ne ma sii jox ma ay firnde yu leer ne te moo ne de ki muy waxal am na jëkkër senegal loolu nag nekk lu day waar ndax bu demee ba jigéenu sénégalaise am fi jëkkër bàyyeeku dem bitim réew di fa jaay boppam di fa dund dund boo xamee ni amul dara lu muy def lu joxe boppam ci àll bi ngir mën a am tàngay àdduna mais loolu vraiment